ربنا إني أسكنت dajal fii yëpp ci kër Seyda Mariam di leen gërëm di leen sant ndax seen teew bii tey dafay wane rek fi ngeen ko teg te ñun suñ ñun ñuy njabootam dañ ciy kontaan di leen gërëm et comme ngeen ko xamee dañoo defoon programme bu ñetti fan. 24 euh, lañ commencé woon vint 26 explique naa lu tax ñu commencé 24 parce que mooy date d' anniversaire de la naissance de Cheikh Amariam 24 décembre. 26 yéen ñëpp xam ngeen ne ci la génn àddina 25 nag moo nekk ci diggante bi mooy jonction bi moo tax ñu ne woon bu ñu commencé kaamil yi dañ koy continuer non stop ba le 26 tey lañ matale rek kaamil yi yàlla dimbali nañu diggante Daara dakaar bi Daara Seyda fii nga xam ne mooy këram Mermoz ak Sacré ak yeneen ñi nga xam ne ay njaboot jum yar comme ñoom Cheikh Abdoulaye Daara mu yassar ak Boura Silla bi nga xam ne nekkul ci mi ngi ci banlieue yi euh, euh, ñoom ñëpp. ak Ihsan bi nga xam ne ci la Adja nekk ak ñu nekk Nigéria nekk Ghana nekk fu nekk bu total ak Ousmane Kane sama sama rak bi nga xam ne mu ngi nekk université Harvard ak Asiatou aussi sama rak bi nga xam ne mi ngi fii ubbi ubbi na daara dee ko daara Cheikh Amarem xaadimatul Quran euh, loolu yëpp ci aw ci tànk yaa booy say daara Adja jiitu woon na ko ci loolu ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu daal euh, loolu dafa jox nit espoir parce que luy yëngatu rek jigéen ñi nekk ci xale yi nekk ci lu am mujj la lu avenir lay doon donc ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen leen sant ci participation bi ñu def donc tey la affaire bi yëpp mat ñu am 638 kaamil. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp daal ak ñi nga xam ne ñii njabootu yaabuy Seyda njabootu deret njabootu rooxu taalibe yi soppe yi ñoom ñëpp a ngi fi euh, dañuy wax rek ne kontaan nañ parce que tey moom dafa mel ni bu yaabooy moo moo fi nekkoon organisé ni mu ni mu doon xumbee bi mu fi nekkee. loolu la mel tey loolu lu ko waral mooy ne moom dafa mel ni jugeewu fi ndax euh, euh, inna asaarana tadullu alayna wanzurna baadana ilal asaari arab lu ñuy wax ne suñuy jeexital moo ñuy tegtal moo ñuy moo ñuy wane moo tax bu ñu fi jugee nag da ngeen di gëstu suñu jeexital bu ngeen ko gis te bu ngeen gëstoo rek dinañ ñu gis donc euh, te loolu aussi loolu yëpp ngëneel bi mooy alxuraan quoi xidmatul quran loolu moo bay yaa lépp lu mu am loolu mooy secret bi nga xam ne mu tax ngeen gis xale yi nii ni ñuy jàngee alxuraan néew na foo ko gisee waxuma ko pour tiitar gu mais ñëpp xam nañ ne fasaaxa bi ñu am néew na fu mu am ak ñi mu euh, boole ci dëkk yu bari jàngal leen bañ mel niñ mel ba pare ñoom ñëpp dañ dañ ko bëgg te dañoo bëggante waaw dafa ci ñoom dafa ji ci ñoom loo xam ne lii loolu alxuraan rek moo ko mun ko donc xam nga mahabba maanaam l'amour mooy base lu nekk comme lu yonent bi doon wax ne almar uma man ahab nit ki ki nga bëgg ngay àndal moo tax euh, kii am na wax ku wax ne benn saaba yi mu ne mosuñoo bég ci lislaam bég bu teel tolloog bés bi yonent bi waxee ne euh, almar uma man ahab nit ki ki nga bëgg ngay nekkal ñu xam ne ñun dinañ nekk ak yonent ëllëg ci aljana donc loolu euh, ñu wax rek di sant yàlla te di wax aussi na lii yëpp ci jeexitalu baay la ak ci jeexitalu El Hadj Omar Kane bi nga xam ne bàyyi dafa waxoon ci moom wal muqaddamu la daa Dakar yaqulu muhibban lil Muxtaar mooy muqaddam bi ñu jiital Dakar muy ombat nañu leen yóbbu yóbbu ci yonent bi donc loolu euh, yàlla indi Seyda Mariam mu nekk genn wàllam ñu ànd ñoom ñaar def li ñu def ba Seyda fépp fu mu àgg rek gannaaw yàlla soutien bi ko El Hadj Omar Kane jox moo ko ko may ñu ngi profité di woo ñëpp. ñu teew fii le 7 janvier incha allahu rabbi dinañ fi def méga xadara juma boo xam ne ni muy commencé mooy dañuy xëy di wàcce kaamil buñ jullee aljuma ba pare incha allah dañ def ay séance yoo xam ne xale yi dañuy jàng alquran buñ jullee tàkkusaan dinañ commencé xadara juma bi incha allah xadara juma xadara juma bi nag ñu ngi koy def ci ndigalu Eh, alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne moo teewal xalifa ci Dakar waaye tamit ci ndigalu cheikh Tidiane Ben Amar Kane alxalifatu cheikh Mariam tamit cheikh Abdoul Malik Ibrahim Niass dana ci teew ñoom ñooy jiite xalifa eh, ñooy jiite xadara bi gannaaw bu ñu defee xadara ba pare danañ fi amal conférence boo xam ne dana dem ba. heure bu jotaay bi tasee waaye ñuy wax ne rek thème bi ñu jël pour nga xam ne ci la ñuy wax mooy. modèle de la femme musulmane émancipée xam nga émancipation am nañu façon. ndax émancipation gis nañ tubaab yi dañuy gis ne rek boo émancipé mooy da nga war a écraser góor gi wala nga dépassé ko. wala nga doyadal ko. Seydina nag dafa fonk jëkkëram di xiir jigéen ñuy fonk seen jëkkër fonk ay doomam. mais bu dara desul lu liggéey nag daf ciy takku te dangu benn góor dépassé ko bu dépassé wul góor góor du ko dépassé te loolu yëpp lislaam moo wax ne innal muslimina wal muslimaat wal muminina cër bu góor am rek jigéen war na ko mën am waaye nag rôle yi yemuñ jigéen dafa am fu mu yem euh, góor am fu mu mais ci tool lislaam bi nag euh, yaakaar naa ne daal euh, xëccoo la quoi te Baye moo ko waxoon yaa ayyuhal banaatu zaahimna ilaa naylillah ama bil abdaanil falaa yéen sama doomu jigéen yi bëgg naa ngeen jóg yëngatu compétir xëccoo góor ñi pour am maqaama yi gën a kawe ci wilaaye ak ci xam-xam donc loolu Seyda daf ko yàgg def ci boppam euh, te jëfee ko aussi ba yaakaar naa ne desul gannaaw alhamdulilah euh, ci lislaam ak ci tariqa bi ak ci euh, alquran ak lépp def na ci li mu war a def te nekk na modèle ci ñun model boo gisee mu ñu ne modèle émancipé dafa am notion modernité yaa booy kenn gënu ko moderne ndax euh, doomam yëpp jàngal na leen ba ñu nekk ay cadre nekk ci organisation internationale yi nekk fu nekk euh, tabax ne école boo xam ne bii dafa intégré enseignement français enseignement général ak enseignement arabo islamique donc xam nga loolu yëpp modernisation mënu ko weesu moo tax ñu ne ku buggee war ne la nga bëgg a émanciper bul dem roy tubaab bi aveuglement am nga modèle bu doy waar boo xam ne bii bu mat la bu nekk sa kanam boo ko toppee rek di nga def loo xam ne kenn defu ko waaw lam yakun lahu kufuwan ahad qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad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 وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وأمرنا بالخير واستعمل بالشر والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والطاعة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكيد وبيد وجوهنا يوم البعث وعد رقابنا من النيران ويمن كتابنا وسير حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا بوصل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أصلتنا وصلك بالسرعة أصلتنا وصلك بالسرعة أصلتنا وصلك بالسرعة وزدنا من كل واصف وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على القران العظيم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 amal na 10 000 ma yónnee la ko orange money ngir yàlla وبيننا وبين الناس وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وأكفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأرزقنا منكم شفاعة القرآن وارفع درجاتنا في القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بقن حرفنا القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل ساعة سلاما وبكل جزء جزاء اللهم ذقنا بألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيانة وبالداء دنوا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالتاء زلفا وبالسين ثناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين حنا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفايا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواء وسلا وبالله من ألف لقاء بيا يسرى صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين أجمعين اللهم بلغ سا ما قرأنا ونور ما تلونا إلى رسولنا محمد عليه السلام وعلى أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا إلى روح شيخنا وسيلتنا صاحب الفيضة شيخ الإسلام عجل يس وإلى روح والدنا شيخ عاج عمر كرم إلى روح والدتنا خادمة القرآن شيخة مريم إلى أرواح جميع أبناء والخلفاء والمريدين الشيخ إبراهيم الأحياء من والأموات وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أنصر من المسلمين آمين يا رب واخذل من خذل المسلمين اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون وصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس ونافل واقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن ربنا في قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقلوبنا يحبسونا ويسر به امورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل قرآن امامنا وقائدنا الى الجنه ولا تجعل خلفنا سائقنا الى النار اللهم اجعل القرآن عظيم الشافع مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعلنا ولا تجعل علينا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا من إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا أردته ولا عصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا إثما إلا سترته ولا حاجة إلا سرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في اسمك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطرافنا ابتغاء مرضاتك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 يا ربنا يا خالق العالمين حكم بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من داس وحرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من داس وحرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من داس وحرج وقضى علينا بالحمد المنعي صراطك من حل اللهم انصرنا بعبدك التي لا تنام واكنفنا بجوارك الذي لا يضام واجعلنا بجوارك الذي لا يكبر ولا يضام اللهم انا نسالك من حول الاعداء ونعوذك من شرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا طعينا وعاصنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين وجعلنا في جوارك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين باسم عبادي غافر الذنوب وقابل التوبه بطيبة جئتك إلهي تائبا وطالبا وخادعا بمنزل مبارك تنزلني وانفعنا جميع من قصدني أجيب في العلم والأذاق نالتهم الأسواء قاس محنا فدارك أنهم واكسر زلت لبعض منهم الأقدام ولتسمح لهم في كام ليلهم الليل الحديد لمن أردت وارفع القيود نراهم في البس والرخاء يمنا وصحة وبدلا زائدا سقى لأحباب وأبقى من طيبة أسئل ظواهري وأنت تدري باطني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا ذال عن الأحباب كل ضيري وقد أتاه منك كل خيري لا ضرهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون حين فاني عيدهم إذ قلقوا فنعمي ونجنا من غلب ونقم مصدقين متصدقين صائمين دار حافظين باعوا النفوس السما والأموال كالمؤمن حب أحوالا أجب رب السر ذاتي وسر أسماء صفاتي ربي يا ربي فتم فعلا ما قد قصدت أن تري من حلا كما أجبت كل عبد سالا فيما مضى فأقلنا الأملا أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأن تجودوا وأن تعلموا أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تفيد إذ أنك الحي ودود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان خلي طابا فضلا وخلي من كل شيء خيرا وكلي يا بالهادي وصحبي الهادي رب الأمين أعطب الأمين كل مطالبي لكل حين أعطل بين بغية وعجلا لي بالإجابة أحب العجلة أعطل بين بغية وعجلا لي بالإجابة أحب العجلة أعطلوا بين بغية واجلة لبجاء تحب الأجلة بما تعودت أراني نلت كل المطالب وإني فزت ما قد دبت قائبا من ربي بل كلما أبت شكرت أو بي نعمه في ظاهر وباطني أصبغ لي في الغير والمواتن زالت قدري وتتعظم موهبة وأبا ما يكرم لدى حوالي دار القرآن فلتدودا كل شهور أبدا وسرمدا يا رب صل على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم لي الوسيلة لدى التغمى يا رب ذات وصفاته وخذ الحالات سدد قلوبنا على الإيمان وتجلنا بالإحسان آمين اجمع نصر الدين أبلغ قربنا وهب لنا ذرية مباركة تكون لنا بلا مشاركة وجعل عنا كل موطن أحسنا إليك ربي لنا أحسنا بالمصطفى الشفيع والمشري خير ولا مقرب المكرم عليه الصلاة والسلام وفعل الخير لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم سبقنا سبق الأقوال إلى صراط المستقيم وعلى آله حق العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم سبقنا سبق الأقوال إلى صراط المستقيم على سواء حق الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح lan ci jotaay bi ñu yàlla may ñu fekkee ko tey nga xam ne dañ ko def ngir fàttali ko xam ne duñu ko fàtte mukk mooy Cheikh Amar Yam ndax ñi fi nekk ñëpp ay doomam lañ ñi doomam lañ ci deret ñi doomam lañ ci maana ñun ñi ñëpp suñu xoolee ba mucc ji bëgg yàlla ndax buñ toogee tey ba mën a wax dara mu saf xoli nit ñi moom lañ koy gërëmee mbootam nag du dagg mukk te lii teewal na ko bu njëkk Seyda Mariam kenn la woon ay junni la mhm. waaw foo dem rek wala nga fekk Seyda Mariam loolu nag ci liggéey bàyyi la naam liggéey boobu nag mooy continuer ba léegi ndax yàlla dafa def fii ci dakaar Kër Radiou Makan moo njëkk nekk centre fayda bi te booba boobu tam nekkutoon lu yomb. dafa tumuranke woon lool booba toog ci Dakar waxoon taalibe baa ngi boo danga koy waajaat mu muñ coono yooyu ba yàlla def tey yëf fi mel ni mel kon ñun dañuy bëgg delluwaat banqaas bi ci dàtt bi ndax am na jamono fu ñu tuddee pays Cheikh Ibrahim dañu xalaat rajo Omar Kane ci itteem ak yëngatoom yàlla décoré ko jël soxnaam jël jël doom yi bàyyi def ko mu nekk soxnaam ñun mu yar ñu kon ñun lu ñu war mooy fexe ba loolu héritage boobu du dee mukk ñu xalaat ci ginnaaw nag man ak Adja Kane ak ñeneen ci ci njaboot gi dañ fa taxawal daayira daayira bi ñëpp ko bokk képp koo xam ne bëgg nga Cheikh Amar na nga bokk ci daayira bi yonent moo wax ci xadis mu ne bokk na ci fonk sa waajur nga fonk ñu mu soppoon te ñun Cheikh suñu waajur la kon daayira bi seen daayira ñu ci oo ñëpp ngeen ñëw participer ci ñu yëngatu dundal faydu bi liggéeyal Baay te liggéeyal Baay ci xeet jaamal gisuma lu ko gën a man liggéeyal lislaam liggéeyal lislaam mooy liggéeyal baay baay mooy lislaam anaam waaw <laughs> mooy liggéeyal lislaam su ko defee ñu ngi ci oo ñëpp ngeen rapproché wu ci Seyna wala ci Adja Kane wala ci sama numéro man sax 77 629 35 35 ñu yónnee leen lien bi ngeen participé ci daayira bi dem ko dundal kër ga dafa war dundal na meloon bu njëkk am na jamono boo fa ñewee foog nga fekk fa Seydi Ali Cissé wala keneen ku mel ni moom Mouhamadul Misri ñëpp jaar nañ fa wasifa bi dund daayira bi dund loolu nag lañ bëgg mu delluwaat fa nekkoon ñu ngi leen di ooyee ñëpp daal ngeen bokk ci xam ne yëf seen yëf la buñ ci jàppee di ngeen def li neex Cheikh Amar Yam yàlla dimbale ba ñu mën koo taxawal ni ko bëggee ci barke yonte bi Seydina ñu ngi lay ziare bu baax di eesal suñ cafeel ci yow yow suñu mbokk nga suñu mag mais surtout suñu sëriñ nga ndax ñun bàyyi mooy suñu jotuwaay ñun bàyyi lañ xam xamuñ keneen kenn mësuñu rax dafa am bés benn jinne di jombal benn dof di ngóobee dof bi faale ko ba chaque dof bi si génne ko man jommi naa bu yàgg kon ba yóbbu nga noppalu ñu ne dal ci bàyyi doon ci génn bu mukk taxawaay bi yow yaa fi bàyyi parce que yaa fi Cheikh Amar Yam ñu ngi ñëw di la ziara ci wuntu boobu di ñaan nga ñaan yàlla lépp lu ñu bëbëj daal ñu mun ci àgg dof su njot bi ñu demee na ren dañoo wax nañu kontaan nañ ci ñu yóbbu nañ un million cinq cent ci quinze jours ñoom nag ñu ngi ñaan yàlla bu dee ñu mun a dem ci dix millions ba lu ko te xam naa ñi ma gis fi ak seen pas-pas buñ ci àndee loolu danañ ko mën ñu ngi oo ñëpp xam ni fi seen yëf la salaamaaleykum wa rahmatullah ziyaare di ziyaare sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane Ben Omar di njabootu Yaa yëpp ci moom euh, dama bëggoon rek indi précision ni lii euh, action de solidarité laa koy tuddee man moo ma gënal ñuy wax don ndax don boo koy def da nga koy jox ku ñàkk euh, moo ma gënal itam aide aide ndimbal boo koy jox da nga koy jox ku tële te loolu du si njabootu Seyda Marème ndax njabootu alquran dara teewu leen waaye ay jaamu yàlla lañ yu bëgg yu baax di collectif des étudiants euh, taalibe de Baye Niass d'une université bu ñuy wax ENSUP Afrique ñoom yàlla daf leen jagle loon chaque année dañ daan ñëw di ziyaara yaabooy ba euh, daaw ñoom ñooy le dernier daayira bi ñëw ziyaara ji yaabooy la veille euh, loolu nag jagle la tey tamit seen deuxième action bi ñu koy def mu tombe ak bis waaw jagle la du hasard <laughs> wala du hasard tey mu tombe waat ak ñaanu yaabooy bi mooy lii moo indi lii daaw ñu ngi woon indi woon ñaar euh, li ma xalaat mooy ñaari ñaari waaw tey ñeenti ko colis lañ indi waaw ñu sëñ bi nga ñaanal leen yàlla ay étudiants lañ euh, di jàng di góor góorgóorlu nekk ay taalibe Baay bëgg yàlla donc lii action de solidarité la dañ ñëw di xidma si bunt Maolana Cheikh Amaram bintu Cheikh al-Islam xadimatul Quran donc moo waral lii euh, ñu jàppalanteeg daayira bi euh, daara ji dimbalante maanaam def action de solidarité loolu moo waraloon lii am na nag événement boo xam ne dañ ko tuddee Sera Mariam ñas le 5 mars bii di ñëw incha allah au muy benn conférence bu ñu def euh, bu ñu doon def chaque année mais ren Sera Mariam moom lañ ko tuddee jagleel ko ko muy journée am thème bi mooy l' islamique des femmes dans l' école de Maolana Cheikh Ibrahim Niass modèle euh, Sera Mariam Niass comme modèle donc moom lañ fas yéene def donc mu ngi noonu euh, waxtaanoon nañ ci. le 5 mars incha allah waxtaanoon nañ si ak sëriñ ba ñaan ko ci ndigal kon daal mu ngi ni événement wu daaral quran la événement pays bi la sëriñ bi bisimilah kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah di jégglu d'abord retard bi parce que xam naa ne sànq ba léegi yéen a ma doon xaar mais dama demoon Kaolack ziyaare ji Seyda di ñibbisi ak embouteillage dimanche bi euh, ñu bloqué ci yoon bay soog a yegsi kon na maa ngi jéggalu euh, di sant yàlla bi ñu ñu teew bés bi muy bés bu metti bés bu tiis waaye di bésu sant yàlla ndax ku la ku yàlla boole ak xaadimatul quran al dundam yëpp mu liggéeyal ko alxuraan kooku da sant yàlla ah bu demee nag di nga wéet waaye dañuy jéem a yàlla baax na bi nga xamee ne moom wanuñu woon boppam yàlla lañu ñu wanoon te bi mu fi jógee itam yàlla jógu fi te it ñun ñoo déggul woon waxtaanam waaye toujours mu ngi doon dénkaane ndax am na ay waxtaanam yu bari bi mu fi jógee Euh, su ma koy bàyyiwaat xel dama naan kii gannaawam la ma daan dénk man dama daan liggéey banque centrale laa nekkoon bu dëj amaan daf may oo ne ma tel kilifa de wàññeeku na bu dimanche na nga ñëw gunge ma ñu jaal ji muy ci foyer religieux yi di ci kër mbokk yi xam nga ki naan la bu dimanche nga ñëw jaal gunge ma ma jaal ji mu ngi lay wan ne bés bu fi jógee bëgg na ngay dem di ko jaale jël lu xew dina ne ma ah nangam de xew na am na lu ñu fa war ñu daal di waxtaan mu ne ma war nañ doxalee nii war nañ doxalee laa xam nga kon kooku war na leen sama gannaaw lii laa bëgg ba ci vidéo bi mujjee umra ji en euh, mai 2019 mu ngi ñaanal njaboot gim jur ak giñ ko dénk di ñaan yàlla ne bu déwénee ñi ma bëgg a yóbbu màkk yëpp yàlla na ma yàlla jox lu ma leen yóbboo xam nga kon mu ngay bàttali ne bu ëllëgee kat ma fi jóge bu la ko yàlla mën lowee ñi ma bëggoon yóbbu nag ma leen yóbbul bi yàlla àttee mu génn àddina may nettali benn nit ma ne ko yaa booy de xaw ma kan la tàggul waaye man tàggu na ma ndax fi ñëw na nee na fi ñëw na indi oto ne ko yow laay jël si xam nga ku nekk àllaaxira bu jëlsee ku nekk àddina loolu mu may yëgal ne moom mu ngi ci waajtaay waaye nangu ma ko woon a déggee noonu kooku ne ma wax ji sax gën na sori loolu ma ne ah mu ne ma moom maamam rek daal lii bi la jógee woon kon Xadaafi daf la feeñu ci maamam rek mais boobu maamam libyen bi moom moo ñëw jël si ko donc moom demam la la doon tàggoo te tamit yu bari yoo xam ne mënu ma ko wax. daf ma ko daan wax surtout fajar gi nii parce que daan faral di yeewu xaaju guddi gi. waaw bu yeewoo guddi nii guddi gi bu yeewoo ne xam ne li julli des julli dafay toog ndeysaan di waxtaan mais yu bëree bëri yu ma daan wax léegi laa soog a gis ne ay dénkaane la yàlla nañu yàlla dimbali nag ba dénkaane yim def yàlla dimbali ñu bañ mottali ko ndax moom daf daan wax ne ku góorgóor la amul ko yàlla jàppale am yàlla nañu yàlla jàppale ñun njabootam yëpp ba lépp loo xam ne moom la mébétoon ñu defal ko ko man dama ko daan wax man na ko Cheikha sa dund gi yëpp jox nga ko alxuraan léegi bi nga xamee ne sa kàttan wàññeeku na nang ma ñaanal li nga mébét jotoo ko def ma defal la ko su ma ko waxee mu ne ma incha allah di nga ko def li may ñaan nag mooy li ko dalee ci sama mag benn Umar kan ma koy nuyu di jaar ci buntam di nuyu rakkam yëpp yàlla nañu yàlla dimbale ba lépp lu mu sama yaay mébétoon ñu defal ko gannaawam njaboot gi mu fi bàyyi ni mu ko waxee li ma jur ak yiñ ma dénk yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu jàppale ko ci njaboot googu ba mu kontaan parce que loolu rek lañ fi am parce que li bàyyi nga doon wax ne ku yaakaar ne doo dee an sa waajur bu fekkee ne gis nga ko ko ana waajuram kon ñëpp dañ fiy jóge yàlla na yéex waaye yàlla nañu yàlla dimbale ba lim liggéey ñu bañ ko yàq yàlla bu mu yàq ko ci loxo puso bi yàlla buñ ko mujjee mu réer te yàlla na yàlla jàppale kenn ku nekk ci njabootam waxuma njaboot gi mu jur rek de ak njabootu ruux gi kenn ku nekk nga yokk ci lim liggéeyam te yàlla bu ñu wàññi yàlla bu liggéeyam yàqu gannaawam يا عزنا يا مرحبا يا مرحبا مريم بنت شيخنا بشرى لنا بالفتنة يا السرور ki أحباؤه بشرى كي